Happy good.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 nuyu ci barab bu tedd bii ci teewaayu kilifa gi tedd gii di cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul aam di leen nuyu ngeen xam ne itam ñu ngi jëm ñu ngi jugee ci bis yu màgg waaye ñu ngi jëm ci bis bu màgg bi bis bi nga xam ne nag mooy bisub Serigne Touba di bis bi nga xam ne mayam gu rëy gii ak li nga xam ne moom la ko sunu borom defal lépp ni mu réyee lépp nee na ci bis boobu la ko sunu borom may may googu ci la yàlla nangu ñaanam yëpp ba sunu borom defal ko lim doon wut lépp muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon bis boobu tey jii di Cheikh Mouhamadul Mountakha ngeen xam taxawaayam ak jubloom ak nammeelam ak cofeelam gim am ci Seexul Xadim nga xam ne mën nañoo wax ne mooy jëmm ji nga xam ne lépp lu ñuy soxla ci kaw suuf muy nekk ab julit xaqan modèle la ci mooy nekk murid saadiq xaqan la ci muy nit koo xam ne dafa fonk doomu aadama yëpp bëgg doomu aadama yëpp kenn ku ne mu yéene la loo xam ne lépp lu mu yéene boppam rek yéene la la ko loolu yi mooy aw doxinam bis boobu di bëgg a ñëw nag moo tax tey jii muy woote kon ñu ngi wax jox kàddu gi cheikh mouhamadul muntaxa al xalifat al aam li tariqati al muridiya ñu bokk déglu ko noonu ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mu ne noonu yi ñu wax rek noonu la cant rek. du ma ci dolli dara lu dul ay cant rek. di yeesal sunu cant ci sunu borom mi nu booleeg Serigne Touba. di yeesal sunu cant ci sëriñ Serigne Touba mi sunu lépp tey ak di yeesal sunu cant ci Serigne Touba mi nga xam ne mooy sunu lépp tey ak ëllëg. nag sama bokki jullit yépp ci ci fan yii di yeesal sama cant nag ci sama bokki jullit yëpp ci bis yii nga xam ne moom la ñu weesu rawatina nag sama bokki taalibe rawatina it sama dëkkandoo yi mooy ñi ma bokkal réew sama dëkkandoo yi nga xam ne ñoom laa bokkal réew mi ñëpp laa sant sant cant gi ma sant cant gi ma sant sama làmmiñ lott na ci sama làmmiñ lott na ci man koo man koo wax sama bokki bopp nee na bokki boppam yi bi ma waxee bokki jullit yëpp ci mën a ñàkkal xaasal sama bokki bokki kilifa yi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi du ci ñàkk xaasal sama bokki kilifa diine yi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi liggéey bi mooy lislaam rek liggéey bi nag mooy lislaam donc nag maa ngi leen di sant ñoom ñëpp kon nag kilifa diine yi ci réew mi yëpp sëñ bi nee mi ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm. ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay. ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay. taxawaay bi mat na sëkk. taxawaay bi mat na sëkk. ci yéene ji ci yéene ji. ci pësteef bi ci bi ci yitte ji lépp mat na lépp mat na lépp nañ ma ko. lépp wan nañ ma ko. gis naa ko. gis naa ko yëg naa ko ci yëg naa ko ci sama xol. maa sant bu baax kon maa ngi leen di sant bu baax ñoom kilifa yi. gën a feddali sama laxasaay ànd gën koo ànd ak ñoom ci fas yéene liggéey lislaam. te fas yéene naa feddali sama laxasaay fas yéene ànd ak ñoom ci liggéey lislaam geneen sant cant goo xam ne nag. dama geneen cant goo xam ne. dama koy sante suñu borom. dama koy sante suñu borom. moom xam ne mooy moom mi nga xam ne mooy def di dindi. cant googu moo di lan. cant googu moo di lan. mooy sama kilifa yii ma bokkal Serigne Touba. kilifa yii ma bokkal Serigne Touba. bokk liggéey bi. ñu bokk liggéey bi. Eh, ñoom nag eh, xaw ma nu ma leen di sante. ñoom nag xaw ma lu ma leen di sante. li ñu ma defal rëy na lool ci man. ndax li ñu la ma defal rëy na lool ci man. xam naa bu baax doyloo gi nga xam ne ko dañ lañ ma ko suñu diggante sëriñ bi. xam naa bu baax doyloo gi nga xam ne moom lañ ma doyloo sama diggante ak sëriñ bi. loolu euh, amul lenn loo xam ne toll nañ mel ni mbir mu toll mu noonu fi man amut. loolu mel ni mbir. mu toll noonu fi man amut. lu rëy la ci man lu rëy ci man. tawfeex ju rëy la ci man tawfeex ju rëy la ci man. jëf ju rëy ju jógee ci ñoom jëm ci man. jëf ju rëy ju jógee ci ñoom jëm si ci man la. sant naa leen gërëm naa leen. sant naa leen gërëm naa leen. di ko seereel sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. di ko booleeg di ko seereel sunu borom. mi nu booleeg sëriñ bi. di ko seereel sëriñ bi muy sunu lépp tey. di ko seereel sëriñ bi nga xam ne mooy sunu lépp tey ak ëllëg. la ca des nag. li ci des rek. li ci des nag dama koy damay jox moom laa jox baat li ci nag dama koy jox Cheikh Mouhamadul Bachir moom laay jox baat. lu ci mat a ci mat a leeral rek mu leeral. lu ci mat leeral rek mu leeral ko. lu ci mat a dolli mu dolli ko. kon nag jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ci ndigalul sëriñ bi dañuy jéem a yëkkati kàddu yi ngir jottali ko bokk jullit yépp ak bokk taalibe yi ndax ñaari kàddoom yi mu wax rek moo ëpp moo ëpp doole suñ junni kàddu waaye nañu barkeelu te jéem a jëfi ndigalul lim ñu sant ndax xam na bu ñu ko santee rek yàlla danañu ko jàppandal kon ci ndigalu sëriñ bi ñi ngi mu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalibe yëpp di leen fàttali li nga xam ne kenn fàttewu ko muy bisub seexul xadim bii nga xam ne moo jub si di fukk fan ak juróom-ñett ci weeru safar te ren jii mu war a dëppoog alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre euh, Serigne Touba digle woon ko muy bis bi nga xam ne ci la fi woon ngir liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci nattoom yooyu yi ba suñ boroom jeexal nattu yi nag sëriñ bi xëy bis woolu sëriñ Balla Fally Dieng ko ci taalibe yi xamal ko ne bis bii bu agsee muy ñaan képp koo xam ne mbégam sa mbéga nga sant la ko ci yàlla lépp lu ci waaye man nag li tàmbulee ci ganaar ba ci gileem bu agsee bu ci kenn yéem dara bu ci kenn xeeb dara nga santile ko yàlla ci bis bi bis bi nag xam ngeen ne Serigne Touba da ko fonkoon lool ba taalif na ci xaside yu bëree bëri ci bis bi ndax wax na ne bis bi lépp lu mu am rek ci la ko amee ndax ci la jaayante ji woon liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba suñ borom faye ko lii mu ko fay tey te ba muy ne ci géej gi nag ci la ko Serigne Touba junjoon ndax dafa bindoo ne katabtu yow ma sabti inde galwaa بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راد لي العدا وساق لي أغراضا فزت لدى جلواء وعند بأفلي بما به أنير كل ما أفلي mooy lii ñu gis tey ñëpp gis ko muy loo xam ne moom la ko suñu borom fay kon nag sëriñ bi nee na ni ko ko ni ko sëriñ bi diglee te mboolem ku fi mas a nekk sëriñ Tuubaa ku ne woote ko ngir sant la ci Serigne Touba boroomam ñaan na loola rek lay fàttali ndax sëriñ bi kon ne xam na ne eh, da ko wootoon ci jaareem ne fépp waaye nekk na ko na ko fa sant la yàlla bu agsee bi sëriñ bi ñibbisee Touba itam Cheikh Mahodou Moustapha wéyal loola ba Cheikh Mahodou Fadil ñëw wax woote ko ne ko ñëpp ñëw Touba ngir sant la ko yàlla ci bis bi kon nag ñaane mi ngi fàttali li nga xam ne. ñoo ko fi jiitu woon daanañ ko santaane te ndigal la tàmbali woon ci Sëriñ Abdul Ahad mooy njàngum kaamil yi dafa waxoon ne màggal gi nañ koy jàng jàngal sëriñ bi ñaari kaamil ginnaaw bi sëriñ Saliou Mbacke dolli wàcc ne nañ ko koy defal ñetti kaamil ngir di ko ci ñaanal mu yàgg fi te wér ginnaaw bu loolu jàllee nag sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu bis bi bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi mi ngi sant nañ ñëpp di sant mboolem ñu bokk lislaam ji bàyyiwu ci kenn rawat na ci xew-xew bi weesu waxal na ko boppam ñëpp dégg yëg-yëg bi mu ci am ci diggam ak Serigne Touba nee na dolliwu ko dara lu may gën a jël léppam jëbbal ko Serigne kon nag Serigne bi nee na mi ngi sant ñu bokk lislaam ji yëpp ndax xam na ne suñ borom moo waxoon ci alxuraan ne yaa ayyuha allazina amanu istajibu li rasul iza na loolu na kon wuy wuy ngeen ko kon mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne Euh, diine lislaam jii nga xam ne yéen a moom yéen a ko bokk lii ngeen defaat firndeel la euh, seenu dundal lislaam ndax suñu borom moo waxoon ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kon na xew-xew bi weesu ci Masaalikul Jinaan ne taxawaay bi ci bokk jullit yëpp am yëg na ko mi ngi sant nag taalibe Serigne Touba yi ak njabootu Serigne Touba yi ci ñoom ñëpp itam niñ bàyyee seen yitte bàyyi seen lépp ñoom ànd ak moom bis ba mel nu kawe njortam waaye nag xam na ne li ngeen di jëf sëñ Tuubaa tax ngeen di ko jëf nee na kon mi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen sant itam ci liggéeyam bu rëy bii nga xam ne somb ko ci dëkk bii muy daaree Seexul Xadim ji ci dëkk bi daaw naga ni daaw la ko woote woon fii wax ci ay kàddu yoo xam ne ba naga kenn fàttewu ko nam ci soññe woon mu yëg ne taalibe yi jëfe nañ ko ba defe ko noo xam ne kawe na njortam kon nag mi ngi leen ci sant bu baax ci li weesu di leen ci gërëm di leen xamal ne itam euh, li ngeen jëf Serigne Touba tax ngeen jëf ko waaye sëriñtuwaa Touba mi tax ngeen jëf ko rek tàbbala na leen ko ci biir liggéey Serigne bi mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan ngeen daye ceeg payug yàlla suñu borom daye ceeg payug Serigne Touba di di ci soññee itam nag ci li ci kanam ñu xam ne liggéey bi li fi aggul rek kenn du wàcc ndax euh, yoonu murit amul wàcc wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqiin lii mu somb na kon di somb bu rëy sant na leen ci waaye mi ngi leen ci soññ li ci suñ kanam ñëpp gën ko def yitte nger xam ne moo fi desoon ci naaru Serigne Touba kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan bis bi itam ñu àgg ci ca bismillahi rahmaani rahim te génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te yàlla suñ moom defal def ci ndam def ci tawféex ba ni ko sëriñ bi bëggee rek kenn bañ ko wàcce ngir xam ne bis la bu mag boo xam ne lépp lu ci waay fas te yéene ko ci ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa daana ci daje moom ndax bis bi képp lañu mas a gis Sëriñ Tuubaa woote ko njabootam gépp itam saa saa su masaan agsi yi yitte jëpp dañ ko jël jëmee ko ci bis bi kon nag nee na mi ngi fàttali ñëpp ñu xam ne sëriñ bi fonkoon na bis bi euh, lam ci daale woon itam ñëpp dégg nañ ko bañoon bi daa it moo tax mu mu tudd ko ak màggal ne buñ ko woy ak tabaskiwaat kon nag ñu koy waajal ñëpp itam nañ xam ne bis bi waajal gi baax na waaye li ëpp solo nag mooy bisu màggal gi bisu màggal gi kon bu ñu waajal li ko jiitu ba àgg ci bisu màggal ga lañ ca war def di di di wàññi ko kon loolu itam ñu ngi koy fàttaliwaat bokku julli ak bokku taalibe bi ngeen xam ne bis bi ni ko Serigne Touba soso yoon loolu kenn waru ko wàcc ndax jëf lu mu baax baax la nga jëf tam dëppoom digal mooy la ëpp solo waaye la jub ci sama xel nga tànn ko rek mën naa bañ doon la gën ci yow kon xam na lépp lu baax la téréwu ko mi ngi koy mi ngi koy rafetlu waaye nag nañ xam ne lii mooy bis bi bis bi mooy bisu màgg ak di fukki fan ak juróom-ñett ci a safar kon nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bokk di gërëm ñi nga xam ne ñoo bokk Serigne Touba di gërëm mboolem ñi nga xam ne seen maam ya dañoo àndoon ak Serigne ba eh, Serigne Touba gërëm leen tofal ci seen ginnaaw mbooloo te ñoom ñëpp itam ñu ànd ak moom àndeen wa gën a rafet mboolem ñi nga xam ne ñooy taalibe Serigne Touba itam ñëpp di ko xoolee jëmmi Serigne ñaan loolu lépp jëg na ko waaye lépp nag dolliwu ko dara lu weesu gën a jël boppam jébal ko Serigne gën a jël boppam jaayante ak jaayante diggam ak Serigne Touba sant na ñëpp gërëm na ñëpp ñi ñaan ñu àgg ca ak jàmm te day ceeg tawféex day ceeg ngërëmul yàlla day ceeg ngërëmul Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kaddu dégg ngeen ko yi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha dégg ngeen kàddu yi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi fàttali ne it bis bi mooy fukki fan ak juróom-ñaar 17 octobre yemook alxames ëllëg sa di ajjuma incha allah yàlla na ko fekk ak jàmm sëriñ bi it yàlla bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool yàgg feek nun lool tal ko man ko ba li mu bëgg a def lépp mu def ko loolu taalibe yëpp nañ ko ñaan dama leen di wax ne sëñ bi li ko nit ñi yéene buñ ko waxee ci seen xol yàlla def ko ndax taalibe dana ñaanal sëriñam ngir yéeneem ju rafet suñu borom nangu ko te ñëpp a ko yéene ndax ni mu yéenee ñëpp ni la ko ñëpp yéenee kon na ñëpp ñaan mu yàgg fi lool waaw ta yooyu ñuy jàngit Cheikh Bachir wax ko yaakaar ne mooy daan dañ daan nañ wax ne na ko ñëpp def ku ko man ak foo mën a ne rek nga def ko def ko addiyee sëriñ Tuubaa te ñaanalaale ci sëriñ bi ni ko sëriñ Bachir waxee والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود صلاة الذي في كل زار وفي سفر